Ahmed Diaw bàmba ci sama xol bàmba ci sama xol lii moo sedd sama xol boutique waa kër Serigne fàllu ku fa dugg sa xol sedd ndax rafetaay waaye itam taa boutique waa kër Serigne Fallou Mbacke di seen vaisselerie bi nekk Touba marché Ocass chez Ahmed jaw di ngeen fa fekk bépp xeetu vaisselle bu di itteewoo ci seen biir kër waaw bépp xeetu vaisselle bu soxna yi di soxlawoo ba képp ku ko gis yàkkamti gaaw ñu servir la ci je dis bien bépp xeetu vaisselle bu ngeen dikkee di ngeen fi fekk ay 22 pièces ay 42 pièces bees ay série yu amul fenn ay fontaine en verre ay fontaine en mica boutique waa kër Serigne Fallou ñu foofu pour seen verre boisson rek ñoo ci mën ci bépp xeet ci bépp design ci anam ba mu gën a mucc ay ci qualité yu wóor te rafet lool ak boutique waa kër Serigne Fallou Mbacke yi thermos yu rafet yu am classe yuy briller ba mel ni or wala argent. ay boolu vingt 24 heures yu mucc ayib yoo xam ne boo ciy lekk da ngay foog ne ci or ngay lekk waaye itam di seetu na mu la neexee ci biir bool bi ak boutique waa kër Serigne Fallou Mbacké ànd ak yéen di accompagner ci seen biir kër lépp lu ngeen ittewoo ci seen wàllu vaisselle ci ay bool ay tegale bool yu mucc ayib inox nickel ay plate yu mucc ayib ci bépp design ay couleur yu rare yu ngeen mësul gis fenn ay glacière yu original garde-pain yi nag moom waxaalewu ma ko ña nga fa ci quantité bu ngeen soxla qualité bu ngeen bëgg waaye itam na mu gën a rafetee ak boutique waa kër Serigne Fallou Mbacké ci Touba marché Ocass ani la ngeen ay série crafu vert yu ànd ak seeni kaas ci design boo xam ne bu ngeen ko gisee waaw fii rek ngeen koy mën a fekk ci boutique waa kër Serigne Fallou Mbacké bamba ci sama xol yemuñu foofu lépp luy sedd xol borom ay pot de fleurs yu mucc ayib yoo xam ni da ngeen di ñëw rek daal di jël seen tige rek def ko ci biir lépp daal ne boy di ngeen fa fekk sax ay xeetu vaisselle yoo xam ne nii mosu leen koo gis fenn mu mën leen a servir ci seen ndékki wala ci seen goûter ak boutique waa kër Serigne Fallou Mbacké Bamba ci sama xol bu ñu ko dee lim du jeex xam ngeen nu ngeen di def da ngeen ñuy fekk si gaaw ci Touba marché Ocass ci wetu centre commercial Serigne Cheikh Lo Ngabou ci rue bi ñuy jaayee fëgg jaay yi di ngeen fi fekk Amet Diaw borom Bamba ci sama xol waaye sopp Serigne sàmbay mu ànd ak yéen ci xeetu vaisselle yoo xam ne nii high class lay doon waaye itam fii rek ngeen ko mën a amee ndax boutique waa kër Serigne Fallou Mbacké dañuy dem ba bitim réew jëlee fa vaisselle yoo xam ne ni amul fenn andi leen ko te bu xasee jeex fii du ngeen ko mën a gisaat feneen kon boog gaaw leen ngay ñëw gaaw Touba marché Ocass ci wetu centre commercial Serigne Cheikh Lo Ngabou jur yi bu ñuy jaayee fëgg jaay yi ngeen laajte boutique waa kër Serigne Fallou Mbacké wala ngeen laaj Ahmed Diaw ba ci sama xol sopp Serigne Sambay wala ngeen woo ñu gaaw ci 77 410 93 58 77 410 93 58 Ahmed Diaw bamba ci sama xol bamba ci sama xol lii moo sedd sama xol teyit Wesel moom ñoo ci numéro 1 ci réew bu Sénégal